kii nekk laaj ko science la. mais non yow moo xamoo problème bi. non non man maa xam problème man ma ne damay déglu kay. ma wax dama la le problème nekkul par rapport ak njiit njiit yooyu ñoo leen fa teg su fekkee ni organisation bi dafay travailler ci équipe parce que organ centrale syndicale c'est les syndicats de base ñoo ko ñoo ko regroupé. waaw ñii seen secrétaire euh, général. waaw dafa ñëw. man ma nekk secrétaire général ma ñëw. waaw waaw je sais dajaloo. ñu créer bureau kenn jiite. kenn nit jiite c'est comme ça que ça se passe lu ñuy jël décision dafa am instance yoo xam ni ñoo ciy waxtaan décidé ko d'accord personne bi personne morale la xëñ na moom ngeen di gis mais le travail ñi koy def mooy instance tey sayam si mi ngi si xam nga Malick Youm tey ci ci élection yëpp ñun ci ñun la àndaloon je pense que yum nekk na koo xam ne mën nañ koo téye di ko di ko di ko xëcc Youm jiite woon na SAEMS moom moo koy jiite ba tey moo ko jiite ñu toll nii balaa moo ñëw sawru la woon. sawru la woon jante la woon boobu mu sax changé. dama la mais ba ca kaw moom. avant moom mbay mbay mbay faal lee la. yooyu yëpp yàggul. comprendre mais dama lay xamal lenn loo xam ne dafa affaiblir centrale yi muy beaucoup beaucoup d' organisations na ne sont pas affiliées CM si boobu ngay wax affilié wul ci centrale parce que bu njëkk centrale dañ defoon affaire ouvrier kese la usines yi rek ñoo fa nekkoon man CNTS bi ñu fay ñëw yàggul ay 2017. 2016 lañ fa ñëw mais bi ñuy ñëw ñun ñoo ñun ñooy ñi nga xam ni syndicat ñu nekk def xanaa ak SYENS ñooy syndicat yi nga xam ne ay fonctionnaire la yu fa njëkk a ñëw avant ay entreprise ay Sonacos ñoo fa nekkoon ay pétrole ak affaire yu parce que EG Cheikh Diop da koy wax toujours dafa am loo xam ni dafa war a élite intellectuelle bi boo xoolaan les plus grands mouvements ouvriers ñi ko daan développé c'était l'élite intellectuelle da nga daan déglu ay Karl Marx ay ñeneen ñoom ñoo daan ñoom ñoo ñoom ñoo yor boo demoon tey jii ay Pologne ay Lech Walesa nga daan nga daan dégg tey jii même les plus grands les premiers présidents africains étaient des syndicalistes. muy Houphouët ba ci Sékou Touré. Sékou Touré Houphouët Boigny dëgg la dëgg la. comprendre baax la ma la dëgg la loolu yëpp dëgg la. loolu loolu loolu moo amoon mais maintenant léegi les intellectuels ils croient que même bu nu nekkee syndicat ñii c'est des cadres. waaw xam nga les inspecteurs de l'enseignement c'est des cadres. waaw mais tey jii amuñu kersa toog ak ouvrier. dama lay wax néew accusé moo kenn mais am na ay syndicats cadres yoo xam ne pour ñoom waruñu dugg ci biir central yi tey am na ñoo xam ne tey ji Synpics pourquoi moom nanguwul dugg ci centrale va poser à vos xam nga may ma rek Cheikh Cheikh tamit non ba bàyyi ma wax tamit développé tamit i bureau ah, foofu laa ah, jëm ñu dóor da nga may bàyyi da nga may bàyyi yóbbu ko conseil économique social muy mais boo ma bàyyi ma ah, développé xam nga xam nga moi de faire l'autocritique na man man waaw déroulé les deux minutes dama def minutes déroulé dama def autocritique waaw xam nga dama ñëw à 11h ba midi li ngeen di débattre yëpp débattre leen ci man. ma mais yaa njëkk yaa ubbi baal bi de. non bu mu ubbee. waaw waaw waaw waaw yow may ma ma wax. parce que nous nous faisons de l' autocritique. d' accord demal la bu ñu defuloon autocritique ñun à la CNTS FC du ñu progresser chaque année de 3 points bu élection amee parce que li ngay xam ni ci la ñu ubbi élargir dem fexe ba dem gisi enseignants yooyu ngay wax. ñun gis nañ waa CUSEMS gis waa SAEMS parce que man dama nekk fonctionnaire xam am lu ma bokk ak ñoom ma gëm loo leen ni l'avenir de la lutte que vous menez c'est d'être dans les centrales syndicales ba ñoom tey jii ñu gëm ko ñu koy rafetlu parce que tey permettre na SAEMS mi ngi ñëw ci ñun CUSEMS ba mu ko déggee bien que ñun ñu ngi doon travailler ak ñoom pour ñu ñëw dem nañ UNSAS dàmbooj mi yor mu jël troisième yor sa CUSEMS euh, euh, authentique dem na CSA tey jii yéen dugg ngeen mais aujourd'hui avant élection yee ñun ñoo ñun ñëpp nekkuñu woon ci central mais tey ji donc les choses vont changer parce que dinañ am rôle am na d'accord naa ak yow li ngay wax parce que toog nañ fi ay années kenn grèvatu fi du benn central parce que gis nañ fi ay lutte au niveau de l'éducation comme au niveau de la santé ñuy xeex ba muy metti ak ñeneen mais central yi yënguwunu mhm. pourquoi yënguwunu loolu aussi c'est un problème mais mais ma rek non non question ça n'a rien man état mën na ma jox duma ma tere non dama lay wax état mën na ma jox te du tere su ma baree jàkkaarloo damay jàkkaarloo moom loolu amul benn wax problème bi nekkul foofu tey jii bu ñu ñëwee li ko indi muy centrale yi ñëw bugg a bugg a bugg a taxaw bugg a bugg par rapport par rapport par rapport à la à la situation des travailleurs mu njëkk dans le passé Cheikh Diop da koy wax toujours dafa ni par exemple éducation mën ngeen grève un an état bi du leen faale parce que conséquences yi duñ ko gis à l'immédiat du yëngal état santé da ngay ñëw. mu nekk secteur sensible on ne fera jamais de grève totale parce que man du ma am samay malade mu war a dem bloc opératoire mu nekk urgence dina assurer service minimum état da koy xam ba moo grève lay dégg mais du ko def da lay seetaan mais tey une grève économique par exemple ñun ñu yor nañ syndicat du pétrole ñu dem toog Cheikh Diop wax ni mooy ñiy dawal oto yëpp war a alimenter station yëpp bu kenn dem du def nañ ko fi am na ay temps ça ne fait même pas un an et demi. ñu arrêté en deux jours l'état a appelé lan doon laaj yëpp ñu jox leen ba jox leen plus que lan doon laaj ma tey jii bu centrale yooyu toogoon tey jii secteur éducation am problème ñu xeex état état bi di layam layam mi comme ni ko sama xarit di waxee ñoom ñu jël responsabilité ne ñoom léegi ñoom ñoo jël grève bi daal ne léegi transport bi dañ koy arrêté lépp dañ koy arrêté l'état va régler le problème xam nga man avant ñu ñëw fi SUTSAS laa nekkoon même avant ñuy dugg SUTSAS bi ma dem soog di couper bi. est-ce que xam ngeen la moo taxoon mu coupé courant bi yéen ñi kenn mën na ma ko wax la moo taxoon mu coupé courant bi. en tout cas daal. jamono jamono Abdou xam nga ko. xamoo ko fàtte naa ko. yow xam nga ko fàtte naa ko. doyen a qui avait coupé si le Sutelec qui avait coupé le courant est-ce que vous savez que le Sutelec n'était pas en grève le Sutelec le Sutelec pas de problème avec le gouvernement xam ne ñoo grève woon agent de santé yi ñoo grève SUTSAS ñoo grève woon SUTSAS ci biir une UNSAS la nekkoon ñu grève pendant trois mois état bi dafa demoon ba ay nit ay agent de santé ñuy dagg seen salaire ba ñuy fayee ko ay vingt mille francs ça a fait très mal à Sock ça à très fait mal à la centrale la centrale à dit que dootu leen ko xeexiti mais ñun ñoo koy jël en charge Sock à pris la responsabilité sur lui-même commencé fi fi muy liggéeyee moom ñu couper courant bi est-ce que comprendre. après ñu emprisonné ko donc ñu emprisonné moom waaw et pourtant du moom ba